jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax <coughs> di jégalu bu baax a baax ci soj bi ne yéene dellusiwaat ci trent minutes chrono comme ni ñuy tàmm di ko defee alxamis junne bu vingt h jotee ci solution info TV ñu leen di gërëm bu baax di gërëm El moo Modou juuf di ko nuyu di nuyu Abdou Sob ak Ablaye ak euh, Fallou di leen nuyu bu baax a baax di nuyu waa Richi ñu dellusiwaat Omar bun Xattab Gueye nekk ci kàddu gi ñu fas yéene nag tey ji waxtaanee. ay ponk bokk na ci génn yu mujj yi ñenn ci opposition bi génn ku ci mel ne Bougane dina ñëw aussi tamit euh, ci yenn ci nomination yoo xam ne am na nomination yooyu la nag ak jàngat biñ ciy am mun na wuteeg nag jàngat bi ci ñeneen ñi di am am na ci tamit euh, mbir yi jëm ci wàllu yoon lu ci mel ne muy Touré Mansour Faye jàngat lañ ci def génn jéegi jóob mën nañ ci def jàngat bu dee xaj na ci dinañ waxtaan ci Cheikh Bara Ndiaye ak euh, kii di Ousmane Sonko lu tax ma dellu ci waat ci ñoom ñaar lu tax euh, ñenn ñi mun ñu leen supporter lu tax ñi déranger ba léegi am na ci ay explication yoo xam ne man am naa ko ci ci ni may xalaatee dañ koy njëkke ak kii di Bougane Gueye Dany doon ab opposant génn saa su mu waree génn comme ni ñu koy nangulee ku mu ne ci ñun ndaxte suñu constitution moo nangu opposition am naam Macky Sall sax jalgati woon na ko wax ni dinaa delloo opposition ba mu yem rek ci turam waaye du tekkeeti dara loolu nag wute ak li am ci réew mi jamono yi da day gën di wax li mu wax mën nañ ko ko nangul lu mu wax mën nañ ko ko lii parce que opposant la day xaxar day xas day xaxar comme ni ko jeneen doon defee ni ko keneen doon defee mais li ci jig ma Samba est-ce que jig na ci ma dem ba li ci jigal Sonko est-ce que jig na ci Bougane yooyu ay njàngat la ak choix politique yi muy am dinañ ko jàngat jàngat bi li ci jiitu mooy réew dafa am kenn bu naan réew dafa am kenn. kenu yi mooy li téye réew mi doon ay jën yoo xam ne mooy téye réew mi ba du yoqet ba réew mi du daanu dama mës a déglu colonel Abdou Aziz Ndaw moo fi bindoon ci général Moussa Fall mu ne Sénégal dafa am ñett yoo xam ne moo ko téye ba tax li xew Burkina mënul xew feneen li xew Mali mënul xew fii li xew Guinée li xew parce que boo xoolee ci réew yi ñu wër yëpp ñu ngi rëngi rëngi Niger kërëb kërëb ba ci di d'Ivoire li fa xew mosul xew Sénégal ñun malgré que ñi ngi coow ñi ngi wax mais sunu réew dañuy saxaar mais duñ tàkk heure bu de demee ba ni Sénégal tey lay tàkk rek mu taxawaat parce que li liñ dund ci Macky Sall Adji Sarr ak Sonko ak rapport présidentiel bi loolu mënoon na taal réew ak ni Macky Sall doon fooye constitution bi ak loi yi réew wi mais malgré tout Sénégal taxaw na dëgër dama dégg benn boroom xam-xam mu ne Sénégal réew démocratie dëgg la ñu loolu tax mu ne parce que épreuve yi muy dund réew mi ci jaaroon heure bi doom lay doon loolu nag bu amee dafa fekk mu am ay kenn yoo xam ne du lu ñuy foye ci réew maa ngi ci buggande mooy justice gis nañ bi justice commencé rëng-rëng ci réew mi rek lim lu mënoon a jural moo tax bi jomaa ñëwee rek mu ne nan xoolaat justice bi parce que yooyu mooy yundul fooye bi ñu dellu siwaatee ñu gis niñ daan fooye armée bi armée bi nekk benn mit nekk la grande muette ñoo xam ne noppi la leen xamee jëf la leen gën a xamee ñoo xam ne réew mi rek mooy li leen yitteel loole bi ñu xoolee Macky sàll commencé dugal armée bi ci yenn yi di leen garder la ay Auchan bu manifestation amee yaa ngi maa ngi fàttaliku ci jamono Covid bi am na lu xewoon bu ma juumul la ministère de l'intérieur ci jamono jooju dafa génne woon armée bi parce que jeune Médina yeeg Colobane yi ak HLM yi ñoo génn na couvre-feu état d'urgence na jeex maanaam ñu dugal armée bi ci yoo xam ne yoonam nekku ci te jamono boobu le FDS les gendarmes et les policiers ñi ngi fi ñaar yooyu lu nu war a sàmm la mooy armée bi ak justice bi parce que yooyu ñuy téye réew suñu réew ba mënee am doole ba mënul daanu yooyu ñoo ko téye mais daf ci am bu am solo bu ma dégg buggaan di ko fooy mooy administration bu ñuy wax administration mooy ay nit lan yu jàng ba am seeni lijaasoo du n'importe kii moo mën a dem ENA di école nationale d'administration du n'importe kii man mi mënu fa dem keneen mënu fa dem parce que da ngay jàng ba egg benn niveau balaa ngay dugg ENA da ngay def concours te concours bu rigoureux lay doon démb dégg naa bu bugaan mu ne non bu man moom li mu bëgg a créer bu ko créer ba noppi maanaam balaa ngay doon inspecteur des impôts wala des domaines dangay def stage 4 mois te xamul ni loolu jiital nan ko en amont mooy balaa ngay dugg ENA dañuy def concours dañuy segg du ko mu neex nga dugg fa. mais moom ni muy waxee ko on a l'impression que dafa jàpp ni ku ku mu neex rek mun nga fa dugg quoi ku dugg université rek mun dem ENA alors que ENA concours lañ fay duggee ñooñu di génnee ENA mooy ñi doon bàkkee du Diouf mooy ñooñu poumon économique réew mi maanaam réew mi bu doon ni koom gi dafa taxaw ñi ko war a téye ba mu dox ñooñ foofu la leen di formé mooy inspecteur des domaines inspecteur des impôts wàllu suuf si wàllu fay impo wàllu trésor ba ci sax avant ñu leen di xaajale sax école boobu ci jamono moom lañ doon former les magistrats ba léegi maa ngi ci justice pour wala ñiy war a téye réew du ay nit lu ñuy fooye ay nit lañ yoo xam ne dañ leen di tàggat jàll lañ ci concours ñooñu du ñu ñuy foye mais dama gis à chaque fois buggaan génn day dal seen kaw xam ne doon doon wax naan Macky Sall maanaam Sonko respecté wul justice bi respecté wul li mais moom ci administration bi maanaam bu ñu wax administration mooy ñi génnee ENA ñu formel leen tàggat leen ay administrateur civil maanaam maanaam réew dafa am ñoo xam ne ñoo ko téye léegi nag lu tax. tey jii nga mën leen a yàpp ba lu la neex wax ci ñoom parce que ñooñu généralement daaw ñu bëri ci seen politique bi mais daan nan politique ah bu ma juumul Lamine Diack inspecteur de domaines la woon Lamine Diack bi ñuy wax te mu jiitoon IAF I2AF ak ñeneen ñooñu daan nan politique am Lamine Diack bu ma juumul yor na fi ministère yu bari il fa nekk fi maire Dakar on sait peut-être mun naa fàtte tuuti. léegi loolu rappel la woon rek pour Bougane pour wàll ni ñooñ duñ caaxaan beneen bi mooy ni leen traité ay daggkatu juuti non daggkatu juuti ñooñu du n'importe qui parce que li ñuy def du dagg juuti parce que lu tax li ñuy def du dagg juuti loolu ñuy koppartu di ko jëlee ci entreprise di leen dagg ay impôt di leen dagg fu ne parce que réew mi tey bu mënee am tali xam na buggaan tey bu tali amul sañ nga jug kaas ko non tali amul bu ndox amul sa buggaan sañ nga jug kaas ko bu inondation amee sañ nga jug kaas ko bu réew mi raflee ci wàllu wér-gu-yaram sañ nga jug kaas ko bu réew mi raflee ci lii bu lii doxul lii doxul lii doxul ci wàllu njàng mi sañ nga jug kaas ko mais on ne peut pas vouloir quelque chose son contraire ji nga xaalis boobu ñu jàppee daggkatu juuti yi naan ay impôt Bougane war ko fay man ma war ko fay parce que dafa am impôt direct ak impôt indirect fii ñëpp ay fay impôt muy di di pauvre pour pourquoi les pauvres ñi fay impôt di ko fay seen facture di ko fay ci leneen ak leneen les riches na ñoom du ko fay alors ko riches yooyu ñoom ñooy sàkku sécurité parce que Bougane tey bu mënee investir au Sénégal bu mënee investir au Sénégal ay business am di dox parce que Sénégal dafa am sécurité Sénégal dafa am justice parce que ñiy investir loolu la njëkk xool est-ce que réew mi ma jëm am na kaaraange loolu la njëkk xool pour que ñu mën leen sàmmal seen alal kon bu ñuy def sécurité di dagg ay impôt di ko fay kaaraange gi pour sécuriser ku mel ne Bougane la kon li ngay joxe mi ngi dellu siwaat ci yow beneen bi ci topp mooy boo mënee tey yor ay entreprise justice dafa am mooy wane tey bu la nit dóoroon marto yow buggaan wala mu fëgg la lu dul dëgg wala buggaan Diomaye ak Sonko teg la lu dëgg fenn rek nga ko yaakaaree mooy justice justice boobu da leen formé di leen fay alalu réew mi kon ñooñu dinañ nekk ci administration bi jóge ENA tas ENA bu neen bu fal woon day tas ENA kon tey jii bu fal woon moom tas naa ban administration lay liggéeyal parce que Sonko ak Diomaye lii ñuy def pour mu dox dafa am benn administration bu koy doxal ñoom dañuy joxe rek les grandes lignes joxe yoon yu ñu war a jaar pour liggéey mais ñoom mënuñu nekk fépp wala Bougane dafa bëgg une république informelle wala un pays informel réew moo xam ne day dox dans l'informel comme ni Jakarta yi di doxee parce que moom ñooñu lay mbubboo wala les ambulants te loolu c'est de l'informel te loolu li ñu ko yóbbee mooy réew mu ñàkk amul dara mu nekkoon ci réew mu normal muy dox tey jii ñi dawal Jakarta ay kàr-kàr la ñuy dawal ñu nekk bitigu mbagg mais ay magasin la ñuy yor ça montre que ça ne va pas ça ne bouge pas mais réew kenn mënu ko tëgg ci informel. kon loolu lu buggaan war a bàyyi xel la dama ko jàngat ci ay waxam mooy te njëkkewul foofu ak administration bi mës na fi wax ni ñi ni les inspecteurs des impôts dañuy añ ba suur rek naan ba màndi rek naan seen ataaya rek ñëw na la milliard non ça ne marche pas comme ça Bougane businessman la Bougane am na xaalis xam na ni ñuy lijjantee xaar xam ne ni ñuy liggéey xaalis Bougane foo liggéey junni milliard war mais war nga am loo jox réew mi parce que réew mi dalaa teel sa lu bari sa karange sa wiir gi yaram sa justice leneen ak leneen du question li nga mën yow yow yow kase la parce que gëm nga sa bopp yow rek yaa ko ba mën non non c'est pas ça dafa am fu la réew mi féete ba tax nga mën a réussir loolu mais li nga réussir au Sénégal am na réew yoo xam ne mënoo ko fa réussir parce que amul cadre juridique bi amul karange gi amul leneen ak leneen loolu doon rappel boo xam ne peut-être bu ma dégloo balaa mi def émission na ko waaj parce que mais nag émission bi démb dafa gudd dafa gudd am na des fois émission yu gudd yooyu tamit des baaxul man seexaana man une heure temps laa que après mooy loolu demul parce que <laughs> man émission bu gudd bëgguma ko beneen bi stop Bougane ñëw ci ni Sonko ak Jomaay yore réew mi sañ na ci wax lu ko neex sañ na ci wax position parce que day def opposition man dama koy nangul mais des fois boo ñëw di opposé wu nga waaj waaj waaj ñëw taxaw boo ñëwee wax ba pare ñu ne gongo on pouvait dire tout dire sur Sonko mooy dafa violent dafa arrogant dafa insolent dafa suffisant am na ñu ko tuddoon aventurier lu ne tuddoon na ko Sonko mais bu mosaan toog ba wax wax li ñuy dindi du yomb de mosaan di wax ba noppi wax li ñuy dindi du wax parti da koy documenter loolu tax nag loolu tax parti yi war a am ay structure parti yi parti warul doon rek benn nit son Sonko lim mën bu ko mënee ay jomaay danoo nekkoon ci ginnaawam ay El ay Matar Sène keneen ak keneen mooy nga am ay cadre yoo xam ne boo waree wax ci justice ñu préparer la boo waree wax ci finance ñu préparer la boo waree wax ci leneen ak leneen ñu prépare parce que nit du xam lépp du xam lépp kon des fois dans nos émissions ñu gën di ko waaj gën di lii parce que boo nee li ñuy dagg jut dafa bari la république des impôts warul doon rek une imposition c'est vrai ànd naa ci ak yow. parce que nos entreprises da leen war a protéger parce que état du joxe emploi mais dafa war a fexe ba ñiy joxe emploi mu sàmmal leen loolu mu mais bu dee nii Sonko ak Diomaye dañuy politiquer impôt mais Diomaye Bougane day politiquer impôt man tey jii bu ma amee problème ak Senelec wala o je pas besoin di ñëw ci média yi di ko wax damay dem rek régler ko arrivé na ma fi. durant deux mois may dawanteeg ñoom mais je l'ai réglé sans pour autant nga gën di ko wax parce que dem nan ba nangu ñoom ñoo juum ci ay calcul ci ni la facturé <laughs> jeex na ñëwal teg ay argument yu dëgër buggaan bu dee li lay dagg ci impôt du dëgg dama lijjanti ko ak waa impôt dama toog ak ñoom ñu wax fa lañ jaar parce que man dama gëm ni benn entreprise warul tëj dama gëm ni kenn warul ñàkk liggéeyam mais aussi tamit réew da ngay fexe ba wax lan laa defar réew mais li ma réew mi di jariñ mais di jariñoo réew mi te réew mi du la jariñ doo jariñ réew mi amul njariñ jariñ réew mi c'est bon nga am ay emploi jël ay nit ñuy liggéey yooyu yëpp baax na mais tamit ngay dagg impo réew boo fa juddee yaroo fa màggee fa daa am loo foo war a féete réew mi war réew mi loolu dafa am solo parce fii leen fi def bor lépp fi bor Sonko ak Diomaye faluur lépp bor Bougane génn ne faloogun sax di leb ay bor mais yow bëggoo ñu dem lebi da nga jàpp ni li doon tere Macky Sall ci leb moom la ñuy def buñ sañoon duñu leb mais bu ñëpp doon fay impo bu ñëpp doon fay impo normalement mais leb du am wala leb bi du bari nag rek ñëpp di fay rek may fay keneen di fay keneen réew mi am xaalis dañuy dem ba li ñuy uti feneen dañ koy am fii li ñuy uti fereen dañ koy am fii mais boo gisee ñu mën a taxaw di leb pour def ay infrastructure leb pour di fay weer leb pour di joxe naan pour di joxe lekk leb pour di fay leb pour di lii pour di lii pour di lii loolu lu koy indi mooy est-ce que ñi war a fay impôt yëpp ñu koy fay parce que bu nee la tey jii ki yoroon këru kart googu waroon na mën a dem yóbbaale douze milliards u Sénégal moom lañ jàpp mais ana ñu rëcc te impôt bi am na ñeneen ñu am ay moyens yoo xam ne mën nañ gañe ay julli milliards ci réew mi mais mën nañ di war ndomba impôt am na ñu koy def parce que duñ déclaré foofu nag la ñuy duggee ci presse bi coowal impôt yuuxu jooy. war na nañu fay TNT waruñu ko fay Sonko ak Diomaye trois mois lañ fi def ñu ne la journal sàngam tëj na journal sàngam tëj na mais journal yooyu bi nekkee ci jafe-jafe du tey billaahi du tey mais lan moo leen téye woon ba tax ñu mën a dëgër mais bu ne kër sàngam am na problème mu impôt mais comme li ma wax sànq danoo war a dem waxtaanee ji ko danoo war a dem waxtaanee ji ko mais dafa am benn stratégie boo xam ne presse bi da ci tombé ci propre piège am presse bi dañ doon lijjanti far parce que Sonko ak Jomaay danoo falu gars yi bëgg leen a def fowukaay mooy Sonko falu na. Diomaye falu na yenn journal yi ñoom Madiambal ak ñoom Babacar jon ak ñoom keneen ak keneen jug commencé tiré ci sonk ak Diomaye taf ta te boobu defaguñu dara maanaam ñu ngi doog falu defaguñu dara journal yëpp journal yëpp après yow doo comprendre ba ci ay journal yoo xam ne yaakaaroo loolu yaakaaroon ni ñoom waroon jouer rôle bi maanaam sonk ak Diomaye danoo falu rek may ñu leen état de grâce may ñu leen sax fu ñu yàkkee seeni nàkk mais après les gens se posent lan moo xew parce que boo leen mois bi Sonko ak Diomaye njëkkee falu am na sax jamono boo xam ne mais avant sax ñuy fal Sonko premier premier ministre mais il disait di n'importe quoi sur lui may leen sax fu ñu seen nàkk léegi nag li xew jamono yi yenn këru presse yi di yëngatu da ngay comprendre pourquoi ñu doon yuuxu di dal seen kaw parce que ñoom ñëpp xamoon nañ am nañ boru impo am nañ boru TNT convention yu ñu signé woon tamit convention wu tappale yu bëri dinañ ko supprimer léegi mu leer leen ni ñoom dañuy dee bëgg ñoom ëllëg bu ñu amee jafe-jafe kenn du wax impo kenn du wax bor ñuy amee ñu ne nan attaqué Sonko ak Diomaye léegi fekk ñaari weer bu nu tëjee ñu ne sonk ak Jomaay ñooy fayantoo ak ñun Sonko ak Jomaay fi leen fekk impôt fi leen fekk TNT maanaam daf leen leer na dañuy dee ñu ne xaalu kaa kaañu xaru kaañu xaru ba pare jiñ ko nit parce que li ñu doon def xaru la président defuloo dara premier ministre defuloo dara nga jug di téere ci ñoom maanaam ay journaux def téere groupe ci ñoom. moo leen jural li ñu am tey beneen bi ci topp ak mooy créer groupe bu ngand ñeenti nit ñetti nit ñooy yor groupe bi yor seen i karkat di ko dawal di fekk ay millions yu jeex ñeneen ñi ay soixante mille cent mille di n'importe quoi du contrat du tous nga foog ni boo ko lekkee dina res du res ak da cee bokk nekk ci média du am syndicat du am dara ku yuxu nga dàqu sans droit bu nu xëyee mel na ay nit yoo xam ne yàlla moo leen yónni ñëpp bon mais presse bi moo baax alors que li am fépp ñu koy jooy mu am ci presse bi mooy baadoo la cërey baadool di sum cere buur loolu dina wéy ak day dal ak laa gën a ragal ci àddina mën nga ko dajale ba foog ni li tubaab naan un bien mal acquis ne profite jamais da ci bokk alal ji daan dugg ci press bi koo ci gis mu ngi yor ay kaat karam di takk ay soxna kenn yoru ci benn soxna jël njabootam yépp teg ci wetam mais ñiy liggéey alal jooju ñoom li ñuy dund kenn xamu ko te mënuñu ko wax parce que bu ñu ko waxee ñu dàq leen te ay boroom kër la yàlla àtte tey ja Isus la waykat ba doon wax Youssou Ndour li ci fitna kenn tegulu ko ludul sa bopp li ci fitna bu ko jiñ kenn kenn tegulu ko lu dul sa bopp mais c'est vrai léegi nag bu doon man dama leen di digal dañuy def probir ba courbe lichine parce que ki ji moom stade bi mu tëjee stade ba pare lu mu wax non tëj naa stade tëj sunu làmb mais yeneen journaux dinañ tëj maanaam dañuy xëy tëjandoo wax ni dafa am crise jiñ ko état bi bari pexe juboo ko gën tegu leen ci yoon dem waxtaan ak waa impôt waxtaan ak Sonko ak Jomaay man bugguma ñu tëj benn presse bugguma benn presse tëj ndax ci lay tedd métier bi lay teral doo ko toroxal te waxuma patron yi sama mbokki reporter yi ak ñi nekk ci rédaction yi tey ay borom kër bu ma sañoon du ñàkk seen liggéey mais na leen seen patron dem dimbali nanguñu ñoom ñoo amal impôt dem négocier ko waxtaanee ko nan demoon ci Macky Sall ba mu ne leen bàlle na mais nan sukk seen tànk dem ci Jomaay ci Sonko. Sonko ak Jomaay bu ñu sañoon kenn du tëj kenn du ñàkk liggéey parce que benn nit bu ñàkk liggéey charge lay doon ci ñoom te gënul ci ñoom te ci ñoom mais ni ko gars yi bëgg a doxalee du noonu nan dem waxtaan ak ñoom bu li leen di baal ñu baal leen ko ñu tegu ci yoon rang yi jubaat loolu laa leen xelal léegi nag li may tëjee junj naa ko mooy pourquoi Sonko pour pourquoi Cheikh baara analyse la boo xam ne dama ko seetlu bi avant Sonko ak Diomaye di jot nguur gi bokk na ci ñaar ñi doon gën a déranger Cheikh baara ak Sonko nguuru Macky Sall may ñu leen woon dara Cheikh Bara gars yi wax tëj kaso mais dugg nañ sax ci njabootam di jaxase noonu ñu ko doon defoon njabootu Sonko noonu lañ ko doon defee njabootu Cheikh baara mais li jaaxal gars yi mooy Cheikh Bara ak Sonko looy gën a dóor ñi gën a attaqué. parce que Sénégal fi ñu bëri noo ragal boo dóoree coup ñu dellu ginnaaw boo dóoree coup dañuy duggaat boo leen dugalee kaso dañuy dellu ginnaaw boo leen tuumaalee parce que sénégalais dafa bëgg deram boo duggee ci njabootam rek mu am lu mu daw mais ñoom danoo xeex xeex bi ba pouvoir bi ñëw Cheikh baar laay wax de ak Sonko noonu ñu doon déranger nag noonu lay déranger ba tey parce que système mu tappale bi système mu njublam gi ak système mu triant bi fi amoon ñu bari doon jàpp ni bu fi jugee. Sonko da ci jouer role bu rëy moo tax duñ baal mukk Sonko kilifa diine kilifa aada journaliste keneen ak keneen du ko baal Sonko ci àddina barke Mouhamed duñ ko baal Sonko moo tax wala cinq du am jàmm dinañ dal ci kawam lu mën dinañ ko def protocole bu ne dinañ ko génnee ngay dégg ku ne di wax ci Sonko bu waxee sax loo xam ne amul solo nga gis ñu ngandal ko comme li ko dal ci diggante ma abbé bi loolu jiituwul tey man ma gis nii ay mbir la yu yàgg mais garab gu nare doon penc law bi du ko gis ndax goreesu ko yàlla mi ko sàmm moom moo koy aar waykat bi nee na joojo matul joojo mer mu yàgg la yàlla suñu borom bu sampee na jaana ñu jàpp ni loolu lépp bu amee ku mel ne Cheikh Bara da ci jouer rôle maanaam Cheikh Bara nekk benn bouclier sonk Sonko ku bëgg dal ci sonk mu dóor ku du may gars yi dara dara dara chaque jeudi mu ñëw des fois mu dugg Sénégal Sénégal set fu ne mu dugg fa fu gars yi bëgg jaar mu fatt ko bëgg a jaxase Touba Cheikh Bara jiitu leen Touba gars yi duñ baal loolu Cheikh Bara ci dina campagne bi jot Sonko ak Diomaye nekk ci kaso bi gars yi di xaar ñu génn Cheikh Bara jël yoon wi dugg ci àll bi ba daaru mu nar a jël bakkanam Cheikh Bara Thiès gi yëg naa ko waxuma ko. Thiès gi bi Jomaay tardé ci campagne bi war a ñëw cees mobilisation amul du ma wax ki woo Cheikh Bara benn responsable Thiès tey député la moo woo Cheikh Bara na ko il faut que nga ñëw cees mobiliser nit ñi pour que Jomaay bu ñëwee mën fi fekk nit ñi Cheikh Bara yeewoo këram cinq heures 3 heures du matin dem Thiès defar terrain bi pour Jomaay mën a ñëw campagne ci campagne bii ay dizaine de millions moom ak Mara fu mu ne Mara jugal Mara jug loolu tax liñ def Mara Touba naqari ma Mara bari na lu mu doon dugg maanaam fu ko ca bari ne jugal mu jug campagne bi metti loolu ñu bàyyi ci seen liggéey maanaam suspendre lépp liñ ci perte kenn mënu leen ko delloo ndax sa seen business lañ yoroon di ci dund. léegi nguur gi jeex nguur nguuru Macky Sall jeex Sonko ak Diomaye Falu ñu foogoon ne Cheikh Bara danaan noo xaar ma dellu samay garab. Sonko tamit boo na man homme d'état laa mënatuma dugg ci yenn détails mais tey jii la waa la gën a ay sonk ak Diomaye Cheikh Bara tey leen gën a wex ak Mara pour défendre la projet ñoom dañoo jàppoon ni bu ñu yóbbee projet bi pouvoir seex Bara ak kee dañuy toog léegi nag ñuy noggatu projet bi Cheikh Bara ak ñoom it seen ñuy noggatu projet bi loolu nag moo indi tey jii lu Cheikh Bara wax mu jur coow maanaam lu Cheikh Bara wax coow lay jur dégg na may mun a. dégg nañu Thérèse di nga dégg keneen parce que leur problème mooy mënuñu wanaasu Cheikh Bara li leen di wax ñi porter plainte ñeneen ñi ngi leen koy wax duñ ci duñ ci sax bàyyi xel ñeneen ñi ngi leen di attaqué duñ ci sax bàyyi xel pourquoi Cheikh Bara et Sonko mënuñu wax ja mënuñu wax dara ñu nangul leen ko parce que li leen jàppal du tey parce que li leen dal ci Cheikh Bara ak Sonko mooy da leen doon xool ci suuf da leen doon xool ci suuf ñàkk leen a xam ñàkk leen a gëstu ñiy xeex di xeex bopp tey jii na jële fi système bi fi nekkoon si sem 60 ans ñëpp a ci xeex de mais ñaar ñi dañ ci xeex lu maanaam Cheikh Bara da ko xeex ci zaahir xeex ko ci baatin si yun mën a wax ak yun mënta wax des fois Cheikh Bara wax dara ñu naan non Cheikh Bara wax na lii wala lee pourtant li muy wax ñeneen ñi koy wax mais munuñu ko baal parce que lu yàgg la mënuñu ko wanaasu parce lu yàgg la Sonko te la même chose am na ñoo xam ne mënuñu wanaasu Ousmane Sonko ci réew mi parce que jàpp ni li fi nekkoon bu fi jugee moom ci la te yéenewuñ ko li muy doxal nii yéenewuñ ko li muy doxal kon loolu tax il faut que ñu comprendre yenn situation yi parce que am ñoo xam ne jàpp ni ci Bara nit ku yorul dara la day topp plateau yi di wax rek parce que boo déggee ni ñenn ñi di waxee Cheikh Bara da xam ne xamuñu ko nag yàlla rek moo tax may wax xamuñu ko parce que ñun ñu ko fréquenté xam na ni nag Cheikh Bara téye na dara te am na dara <laughs> mais bu lay wax day mel ne koo xam ne tekkul dara boo déggee ni may mun a waxee comme si nguur gi ba mu falo ak tey jii Cheikh Bara mooy topp seen ginnaaw di daw jariñu ci amu ci dara faale ko may mu a ci ni muy man waxuma ci affaire u télé beeg mais ci ni muy waxee man damay jàngal ay wax dafa bëgg wan ni nguur gi faaluñ Cheikh Bara mu ne man am na ñu nekk ci gi sax ñi jël téléphone woo kon moom mu ngi gën a approché nguur gi di gën a jege pour walla ni amul problème ak Diomaye ak Sonko mais Cheikh Bara moo am problème pour jege Diomaye ak Sonko dans son ay wax rek lay déglu mais ni mu waxee mooy am na ñu bokk ci nguur gi sax woo ma masuwuma laaj la laa si masuma mais bu dee Cheikh Bara moom mi ngi dox moom amul ci dara. loolu la bëgg indi te pourtant ku xam li xew xam ne demewul noonu looloo tax lu tax ñuy déranger on comprend léegi nag foofu lay daanelee daf ci am loo xam ne sonk ak jomaa ñoo ko war a def mooy danoo war a protéger Cheikh Bara waaw parce que tamit daf ci am yoo xam ne bu dee ni day am di amaat. day mel na nag sonk ak Diomaye li ñuy teg Cheikh Bara da leen a neex wala seen yoon nekku ci te nag ku la nekkal da ko war a nekkal ku la nekkal ci naaj bi da koy nekkal ci kër gi billaahi li may wax wax waxuma ci ak Cheikh Bara tàgguma ci parce que man duma ma noonu mais li may wax li may këm la amul lu kilifa walla nit dof wala keneen ak keneen mais arabisants yi nekk moo dab dal leen war a fal gars yi ëpp ñu leen am xam-xam ëpp ñu leen xel mais pourquoi waa modab yu toppoon di sëriñu daara yi ba tey ji ñu gis seen bopp ci nguur gi loolu man question la te billaah ñi ñuy fal tanawul leen ndax nag réew mi maa ngi koy bëgg a mën xam naa fi ñu bari waaw te nag nomination yi na doon nomination waaye bu mu doon recasement parce que nag recasement dañ ko daan bañ ci wàllu politique mais nag yenn nomination yi on ne comprend qu'est-ce qui se passe yéene nañ ko ñun ko jox mais damay bañ rek li bukki bi màttoon nguur yi fi jóge dal nguur gi parce que nguur gi bu échec ñun ñëpp ñooy échec kon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di jégalu ñëpp di baalu ak ñëpp lépp lu luñ ci wax loo xam day déranger nit jubluwuñ ko ci waaye tamit lépp luñ fi wax mu neex nit rek na ko sante suñu borom kon mu doonoon 30 minutes chrono on bu xataab gi ci kàddu gi gërëm El Hadj Modou Diouf Abdou Top ak Abdoulaye Diallo ci régie bi ak Fallou kon beneen alxamis incha allah ñu dellu si waat 30 minutes di jégalu ci baat bi tey dama xaw a kii mooy loolu jaajëf.